sëriñ Basiiru mbokk yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. xéewal feeñati na ci Touba Daarul Minan boulangerie pâtisserie Cheikh Mouhamadul Bachir Mbàkke nekk ci Touba Daaru Minam ci mbedd mi ubbi ko ci penku penc mi jëm 28 gérant ba di sëriñ Xaadim Rasul Gueye ñoo jëlee ay matériel yu am solo bitim réew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 Mbàkke moom la fan fanweeri fan yi man sëkk si laa koy wooree mel ni mbubb laay nekk doole ju bari jot ci rek mbaa ma tëcc ba Wolof Njaay nee na ku karaw fal boo demee marché wuro fàtt diwu bopp te ku am sa xaritu golo sa ngeen wërtu tàgg te yàlla dafa dogal ne kii day kenn ci man yow it ngay kenn ci man bu dee ngénte dina ma jiital bu dee ceeb dina ma jiital fekkee safaan wa dina ma jiital muy nit ko am mbooloo nag ci koñ bi Mm-hmm. nit ku am mbooloo nit ku dëggu la ba tax na mbooloo moomu mu am moo tax tey ji ma bëgg la boole ak moom ngir campagne bi mu ñëwee nga battre nga battre bi koñ bi yépp ndax jàkk ji umpale woo ko dëgg lu mu wax sa jàkk ci suba ba ngoon wala si koñ bi ci moom la ñuy dem muy politicien bu mag nag mm-hmm. di ko di ko di ko di ko doxal si yoon di ko doxal si dëgg par parloo fii du par parloo fee moom fan fam na ŋàjj fan naan ŋàjj rek jàpp yow it nag da dana soxla lu jóge bitim réew ñëw indi fii sa xaalis pour pour defar Sénégal ma ne ko woon nag naa ko indi pour euh, loolu ñaan présenté ma presente la ko mm-hmm. yi ñaar bu ngeen waxtaanee comme que si koñ bi nga dëkk moom si koñ bi la dëkk nett li si ñu borom a dàqe mm-hmm. ndax imaam mi day nit ko dëggu mm-hmm. waaw dëggu la yàlla ba la di doom Euh, bàcci comme ni ko Matar wax rek mhm. ndax maanaam euh, man maa ne ci koñ bi mhm. nekk imam bi lépp luy dugg wala luy génn ci man lay jaar ñu teg waa koñ bi teg ma fu fu kawe moom mii mu ñëw am lu ma wax ci seen mbir yow mhm. pour ma jàppale la ma ne ko rek mën naa nekk ndax wax dëgg yàlla ñun moom nekkuñu fi ne dañ fay nekkal benn nit rek ñun dañ fee nekkal ñëpp rek képp koo xam ne yaa ngi jàppale koñ bi yaa ngi jàppale gox bi ma ànd ak yow kuy kuy bu ñu jullee néew yow imaam. ah yow imaam. bu ñu bu ñu bu ñu maye. imaam lépp imaam. lépp imaam waaw koñ bi maa ko sama koña. Mm-hmm. samay waaw ci la ñuy dox. Mm-hmm. ak samay déet. waaw ndax dafa am ñoo xam ne nii ñoo ngi ci koñ bii. suñu ginnaaw nii tuuti rek. Ah, benn benn kii bu ñuy wax ah, góor gi ba. <laughs> imaam góor gi ba. loolu soo jubut moom moom xam-xam te moo ngi yor waaw ma bëgg am oto comme moom di yor comme moom di ko wan ne maam gënoo maa gaaw. waaw ndax ñun daanaka ñun dañ maa def ko xamul dara ndax ñaakay roto gi ba ñaakay roto waaw léegi nag ma ci loolu mm-hmm. ma jàppale la mm-hmm. waxuma la waxum waxuma la euh, ministre mm-hmm. waxuma la député waaye président ngay doon nga baal ma kooku nga si wax nit ñi waaw góor bi eh. sacrifice la de waaw ah, góor <laughs> waaw sacrifice ah, ah, euh, naa li ngeen wax te it wax ji rafet na kontaan naa euh, dégg naa wax ji tamit wax ji rafet na trop parce que lii rek laa yittewoo ci yéen tey it yàlla moom ñëpp la fi nekkal. Mhm, mhm. ndax euh, man kaana lillaahi kaana laahu lahu <laughs> ku nekkal yàlla. waaye nag man kaana nit. Mhm. <laughs> kaana nit nit <laughs> ku nekkal nit. nit nekkal la bu ngeen ma nekkalee. ah waaw waaw ma nekkal la nekkal ah waaw waaw. Ah, loolu kay nekkal nag ah loolu kay bu ñu ko defut moom daanaka. man moom. Mhm. wax dëgg yàlla ba ñu ma ci yéen dara. te et puis gox bi rek a ma ñor. Ah, parce que suñu ñi liggéeyuñu. Ah, ay sabotage la ñuy def. ah fii lan moo fi baax. dara dara dara dara baaxu fi. dara dara dara mais ay nit soo leen bëggee téye dafa am loo leen di téye. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. man li may def yaakaaruma ci kenn. dama koo am. li ma bëgg. su ngeen ma ci jàppalee. li ngeen bëgg dinaa leen ko defal. ñun mhm. politiciens nag euh, bu ñuy faral di wax dañ naan waxi politiciens la rek mhm. mais man maa ñoom bokku ñu. waaw ah, bokku leen ah dañuy <laughs> ma. Ah. nga leen am nañu bëgg. moom bokku ci maam moom ci waaw. ah moo tax man la bokk maa ngi ñooñu. Mhm. Ah, ñooñu dafa am ci luñ yaakaar te man samay teraanga dama ko yor. man yaakaaruma ci kenn. man sama lépp dafa mat. <laughs> Euh, jàppale leen ma. moo mhm. jël gox bi. moom kay yow kay na sa xol sedd. waaw ajjuma bii ñu jëm. incha allah yow laa xutba. jéem moom man man man moom yow moom. Hmm. nga fekk ko nga ñàkk ko fekk. Ah. man moom saw tur moom na poto. Ah, ñëpp dina la dégg. boo ko xëy ni ngay hmm. lépp naa ko wax ci ci xutba ah, <coughs> daal li ma leen di xamal ci lu gàtt. Hmm. mooy mbir yaa ngoo ko. waaw affaire ñu ngi seen loxo. na sa xol sedd. allah dina am nu ma def ak yéen. dinaa bind benn sec balaa dara xew ngeen dem retiré <laughs> moom moom. ajuma moom. fekk la mu fekk. yow laay li tax ma ñëw fi nag mooy sama diggante ak yow ndax bu ñu ñëwee ci jàkka ji bu ñu la gisut man la ñuy gis maa topp ci yow topp googu nag lislaam moo ñu boole ñu war a laabirante ndax dégg naa ni róofa la ngoog ak niti àdduna yi wax jang ci wax yépp dégg naa ko ma bëgg nag fi ngay teg sa tànk en tant que jullit ak moroom nga teggi ko te xam ni yow li la suñu borom dénk bu ko jënde mukk loo xam ni jurub àddina la ndax loolu bu la ko seen borom jagleele lépp looy dabu ca lee rek di nga am ci lu ko raw fii te di nga texe fii doo ko texe fan jëm yaakaar naa ni jàng nga te yéen ñi nga xam ne yéen ñu mel ni yéen ak kilifa yoo xam dañuy wax ñëpp di leen dégg ñu nawloo leen ci lislaam ak diine ay nit ñoo xam nit yi àdduna kese lañ ñu jaxasoog ñoom yàq seen dër yàq leen te duñ ko yëg bala ngay dugg foofu nag dinaa waxtaan ak yow te xam ne da am responsable bu rëy xam nga ni nit bu demee bay jàllale nit ci xutba gi nga xam ni message suñ borom subhanahu wa taala nga di ko jagleel nit waroo koo jagleel nit ngir mere ko waroo koo def nit ngir topp bànneex te bu fekkee ni yow dangaa bëgg a fas yéene damu bànneexu doomu aadama weccoo ko mbégum suñu borom subhaanahu wa taala wala yàlla mi xam ne ko war a jàmm gënoo maa gënuma laa jàng xam nga li li ci alxuraan wax ma bëgg nga rocc sa tànk bañ cee dugal sa tànk dégg la jëm bala laa yaraangaa dal nag dinaa ci wastu sama àq lii moo tax ma jóg ñëw ñëw te lépp loo doon dabu ci muy oto bu rafet ak lépp na nga xam ni ngërëmul yàlla dàq lépp kon nag sàkk ko te def ci mission bii la suñu borom di jagleel ci mbindeef mu ëpp doole loolu moo tax ma ñëw wax la ko jàkkaarloo yow laa biire la ko ngir liñ bokk daal jumaa ji baax na jërëjëf. Euh, nga baal ma ma man sax dama xamul lan laa war a wax li nga wax lépp dëgg la waaye boo gisee ma def lii àndandoo la rek moo ko waral man xam ma lan moom ma ko def loo fi nii moom ma jaaxal waaye lépp di sëñ Matar Thiam rek moom ma ko teg lépp lu ma dugg suba ba ngoon moom may moo ko waral. topp sama noppi lu ne mu wax ma ko ba tax ma naroon jëf-jëf ju ñaaw jee waaye damay santat yàlla ba ma daje yow mii ba nga ba nga ba nga ba nga dëpp ma billaahi wallaahi wa taalaahi laa la waatal ne lépp lu ma naroon gën naa ci ba sit ba sit wécc yàlla rek moo tax may def jërëjëf àndandoo rek moo ma judduwal mais maa ngi koy jéggal suñu borom yàlla na ma ko suñu borom jéggal li ma naroon def dafa guma ko waaye yàlla na ma ko suñu borom jéggal jërëjëf jërëjëf kontaan naa ci yow soo amee loolu nag di nga am ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla moo dàq lépp ndax du jeex dangay texe fii ci àdduna demaaleeg moom. jërëjëf du ñu xaari fenn fii la ñuy texee doog a dem. jërëjëf njuumte rek.